pal jik nanu doy nanu te moonu màggal ku mën léri ki nga muk malaaka bam sew mbaate nga bew ab yonent bam bew say pexe mën la tee nu gëm sëriñ bi suñ xola dee ci daam borom baraak bi borom Tuubaa nu doyite moo gàddu muy ki attan mu cëral mam Abdu nun bootu nan mooy nañ ci daam bu yàgg caalamur arwaaxi loola màgg borom tuba soppu jëmam di ko bége moo ci yàlla gépp jaamu gu tege borom tuba ci yow la xol yi di jage ku ko yëgul gone la guy dawal mbege bismillahi rahmaani jëf jërëjëf borom tuuba amul morom jëf borom tuuba jërëjëf borom tuuba jërëjëf borom tuuba jërëjëf borom tuuba ragal péete mën naa tax ba nit lam amoon bana ñépp tey faf mooy ci buumuk borom tuuba jaloorey borom tuuba xanaa rëy ga yem na leen da ko nettalil boppam ku mën tey na moom tuuba fa wallaahi ànd ak yow bisub ci doy na lay ku juuyoog sëriñ tuuba du gis gaay jëm tuuba bu neexoon borom tuuba ku di nga torox fasa sa kër yërmandeem jaa tax nde kon kenn du dem Tuuba rëy yi jëf te wécca lool xuloo dawoo jaaxle xanaa mend mbubbum ndam mi am yaa ko Tuuba waxoo naa bu dul kon diw samay mbir du jëm kanam danga jéggi mbindeef yépp lee tax nga am Tuuba musu daw ngirub saay-saay tawaajoo fi dégg tey bu koy pontu doon jam dootu tal mukk waa Tuubaa te looy wax musu faatu waxtu doo daw ngir ku ragal ku naa tey dafay kabbar na njukkal borom Tuubaa waxoo naa damay maslaa basaanoon yi baal ma tey danga sax ci sa jaamu tanaalee ma dem Tuuba ba buur ak sëriñ si ne ku lew toog tubaab bi xam danga wax ni man dey kenn du tee may borom Tuuba yaway jant bu déggee ñu naa weer wi leer na tey xanaa booba yaa fenkul nañuy ber borom Tuuba yaway jant boo déggee ñu naa weer wi leer na tey xanaa booba yaa fenkul nañuy ber borom Tuuba amoo kem amoo maas tey ku muus nag te bëgg raw kemam yépp nay wéetal di kennal borom Tuuba amul kuñ ni sag may tey yemoo naa gosam cundum du ab xutbu dub yónneen danga wéet sëriñ Tuuba mosoo woote ak yónneen danga wax ni sam mbinday taxaw wecci ay yónneen ku lay mooy du dem Tuuba lile tax ba seytaane taxaw tem mu ci di sikkal sa ay taalif di bañ ñëpp dem Tuuba moroomum sëriñ Tuuba ku koy sàkk nak xamul nde yàlla tappeg dundam ci dunduk borom tuuba rëyug may waroon naa tax ñu wax nag ci kaw li kaw jërëjëf borom tuuba jërëjëf borom tuuba rëyug may waroon naa tax ñu wax nag ci kaw li kaw jërëjëf borom tuuba jërëjëf borom tuuba waroon naa waral nag tey ñu fob ruu yi joxu ko ko diggantal sunuy kër baay ak ay ndey di dem Tuuba muhammad rasulillahi xam naa ni bëgg na tey nda daa sopp lool koy nda daa sopp lool koy way nda daa lool nda daa sopp kuy way lool ak ay kañ borom Tuuba muhammad rasulillahi xam naa ni bëgg na tey nde daa sopp kuy way lool akay kañ borom tuuba muhammad rasulillahi xam naa ni bëgg na tey nde daa sopp kuy way lool akay kañ borom tuuba allahumma salli ala sayyidina barkeb borom tuuba yow di wut ngërëmal buur yàlla ndax gisuloo Seex Bamba jàmbaar ji tax ñu ne Kaaxaraaru ki woote woon màggal gi fii Tuuba ba ñëpp di fëx jàmbaari maam Cheikh Rafal sangu borom daaru moo kennaloon yàlla gëm yonen ba mooy kawayoon qalbi lahoo fi xitaabil jismi takraaru sellam nga semmal na seelu noon yësël sëli woon ngir suul ko mësta tawat te mësta bakkaaru budul woon ak moom ku gëm buur yàlla doo ko wédal mbaa doo ko gëm moo ni woon yàlla di xaaru tawhiid ju jar wax dëggantaan bamba rekk ko am ngir luñ ko def weddiwul te woon na xamaaru jëm nañ ko ay rabb gas nañ suul ko dóor ko fetal tiifal ko ay fani fantewul di sakkaaru tubaab jël ko dem moom jëm Gabon ni buy egg faa toofa ànd noon ba makkaaru sëñ Bamba jël xalimaam di kañ boroom ba ko moom tiitul raful jublu rek sangam ba muxtaaru allahu akbaru allahu akbaru bambaay bañ bañ yàlla bañ mustafa bañ gaay abraaru yabudu ñakku xorom raagaaloo te bakku woon ndam woo yay ngeen jabraaru yaa mata xam mata gëm bamba yaa mata am waaju am am na ngeen gi ndam ci la siraaru yaa mata mata gëm yow Bamba yaa mata am waaju la am am na ngeen ndam ci la siraaru bismillahi rahmani rahim barke borom Tuuba suburu yàlla ni waaw yonentam ni waaw ku fi bañ ni waaw waaw mbiram dal di ñaaw sëriñ Bamba maa soowul ak cam faral ngabbu sab nos te ko gaaw atum wam sa seeg léegi nañ sayam di gàcceeli démbam renam dàq daaw ña daa takki njàngal te koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxul lépp saaw ña sampooni koote ka daa nasul bon amuñ ndam te laaluñ la ñuy dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ joxle seen mbir waraani pitaaw bañam yépp giim nañ mu des fii bérëx mbiram jëm kanam seeni mbir jëm gannaaw ña daa wër di daanak di rangoy tëndën azal tey bëggoon nañ di buurub jaxaaw ña daa tëf ciy wëñ di xancak di fas badam dillu seeñe palem seeni xaaw mbërum yàlla maa ngi te maa koy wayal te duma deeti fendal ba bis ma ŋaaw donoy Mustafa ngi tadib xaadimam te moo duy bagaanub ku fi ñëw di baaw ña doon baaw waameem walee nañ bu leen gantu ba seen mbir di ñaaw ña doon baw ba waameem walee kiilu nañ bu leen gantu ba seen mbir di ñaaw